parce que taxawaay bi Macky Sall taxaw tey mooy bëgg na nekkaat ci bopp réew mi bëgg na soxla na troisième mandat mais da ko waxagul lu koy firnde mooy képp ku bokk ci moom ku wax ci troisième mandat rek makisal Sall dàq na kon réponse bi mi ngi ni Sénégal tey leer na ñëpp xam nañu Macky Sall fan la lan mooy tànkam lan mooy mbébétam lan mooy intention mooy dafa bëgg a toogaat fii troisième mandat te suñu constitution mayu ko ko donc loolu mooy amul droit pour nekkaat fii encore président ñetteel yoon ñaar yoon rek la ko constitution bi may moom mi taxaw na wax na ko fu ne nul ne peut faire deux donc moom mii xam na loolu euh, lu ñu koy ñaan mooy euh, élection yi moom na ko organiser te bañ bokk ci élection yi parce que amul droit bokk ci élection yi amul droit laa jaati réew mi nañ ko organiser mu wut candidat mu ngemb ko waaye kuréel bii organiser élection yi tamit warul nekk ministère de l'intérieur warul nekk Aly Ngouille Ndiaye commission neutre indépendant bi nga xam ne amul benn influence moom moo war a toog organiser élection yi saytu ko benn ñaar fichier électoral bi ñuy wax nii dafa jot Macky Sall jënne fichier électoral bi ñi ñaan opposants yi nga xam ne ñoom xam na ñoom ñi ngi opposé wu tey ci communication sur le terrain gis nañu opposants yi ñëkk ñu wax donc opposants yooyu nañu jënd exiger ñi jënd fichier électoral bi ñu auditer ko waaye ñi jënne carte d'identité sénégalais yi jox leen te ñi bañ bind ci carte d'identité yi ne peut am na ñu bëri même Europe bi extérieur ñu ngi jot seen récépissé mais ay ne peut pas voter lañ ci def loolu képp ku ko defaat ci élection yi na nga taxaw voter kooku warul de li nga xam ne dañ ko war a nangu loolu dañ ko war a dindi parce que kuy dem ba woote démocratie war nañu am élection yi transparente yu jaar yoon mooy bépp sénégalais bi nga xam ne sa waxtu am nga matal nga ay at bi jox nga war a dem tànn ki nga war a teg ci mairie bi ki nga war a teg ci euh, assemblée nationale wala ki nga war a teg ci bopp réew mi nga dem def ko parce que sa yelleef la parce que sa droit la loolu la ñuy soxla te loolu la ñuy wax ñi yore réew mi en l'occurrence makisal mu jënne fichier électoral bi mu joxe ko te ñi ngi ñaan les bonnes volontés les partis politiques ñi nga xam ne ñoo fi nekk di opposition nañu waxtaan seen biir ñi jënd parce que jënd jot na pour laaj fichier électoral bi pour laaj élection yi parce que waratu ñu pousser élection yi élection yi ñaari yoon ñu ngi koy pousser ñaari yoon ñu ngi pousser élection yi doy na waratul ñetteel kon parti politique yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal te pare pour dem élection yi nañu jënd laaj fichier électoral bi laaj carte d'identité ñu def révision électorale taxaw ñu jënde ñëpp amul benn sénégalais bi nga xam ne am nga droit pour voter élection ba pare ñu ne la ne peut pas voter c'est pas normal nëpp peut pas voter warul figurer warul nekk ci benn carte d'identité warul nekk ci benn euh, euh, récépissé électoral loolu dafa war a jeex Sénégal képp ki nga xam ne jot nga sa carte ñi bind ci ne peut pas voter jour élection duggal ngeen voter par force parce que moom Macky Sall voté na te yorul carte d'identité Fatick moom Macky Sall dugg na ci urne mu voté imposé ñi ñi mu voté par force te yorul carte d'identité kon ku yor carte d'identité ñi bind ci ne peut pas voter c'est pas vrai imposé nga voté te loolu sénégalais dañ ci war a jóg parce que ñoom ñoo ko defee exprès pour exclure sénégalais yi ñi bañ a ci élection yi parce que xam nañu ni mënuñu gagné élection yi ils sont minoritaires parce que amuñu bilan waaw mbokk yi faw ñu waxante dëgg waaw amuñu bilan liggéeyuñu donc seen stratégie politique mooy lan jëlee nañ carte yi bind ci ne peut pas voter ne doit pas voter wala récépissé yi nga dem ci fichier élect nga dem ci euh, euh, euh, bureau électoral nga war a dem ñeneen sa tour nekku fi loolu ak complicité les forces de l'ordre ñii na nga xam ne ñoo fa taxaw ñi xaañ sénégalais bi mu war a def yelleefam loolu dafa war a jeex il faut ñiy nekk ci naan dañuy dialogue politique dañuy war a waxtaane loolu mu jënd moo tax le général Niang am na responsabilité bu rëy et je pense que en tank général c'est un militaire donc na taxaw taxawaayam bi ko war comme ni mu ko defee convoqué commission de dialogue politique boobu ñu jébbal Macky Sall comme nu ñu jébbalee Macky Sall rapport bi ñu war a taxaw moom moom mu war a taxaw taxawaay bi nga xam ne général Lamine Cissé amoon na ko fii ci jamonoy Abdou Diouf mu am fi woy gu rafet mu woy fi woy gu rafet mu jëf ci jëf gu rafet tey moom général Lamine Cissé am na woy gu rafet parce que taxaw na taxawaay kilifa gu mag ñu koy ñaan général ñaaw na takk fitam jël responsabilité am taxaw ci ngir fichier électoral bi jën ñi bañ a bind ci carte d'identité sénégalais ne peut pas ñi bañ a bind ci récépissé sénégalais ne peut pas voter ñi bàyyi sénégalais bu nekk mu exercer droit am parce que constitution bi moo ñu ko jox jamono ñuy toll nii tem lu fi nekk tey urgence mooy fichier électoral dina jënd parce que makisal ak ñu mu àndal amuñu benn alibi bi tax ñu war a pousser élection yi du coronavirus bi parce que bu dee coronavirus bi la ñoom ñii ñoo ne way il faut vivre avec waaye il faut vivre avec le coronavirus ok monsieur le président Macky Sall ak sa gouvernement le peuple sénégalais accepte de vivre avec ce coronavirus là en acceptant de vivre avec ce coronavirus, nous demandons la tenue des élections locales. Nous imposons la révision du fichier électoral en vivant avec ce virus, ce coronavirus-là. Le peuple sénégalais réclame le fichier électoral. amulen leen droit pousser élection yi parce que amul benn alibi bi nga xam ne tey mun ngeen ko wax sénégalais yi ñu ne way way lii moo tax ñuy pousser élection yi pousse ngeen élection yi ñaari yoon bu mu ñetteel bu mu ñetteel parce que toutes les conditions sont réunies pour ñu mën a tenir élection yi et toutes les conditions sont réunies pour ñu mën a def fichier électoral bi et puis may lancer appel le diaspora sénégalais l'opposition sénégalaise boo xam ne mu ngi ci diaspora bi les patriotes de Pastef nañu préparer un rapport nga xam ne dañuy dem seeti commission union européenne nañu dem ci union européenne wax leen ni Macky Sall bëggul génne fichier électoral bi nañu dem ci union européenne ñu ne leen Macky Sall n'est pas prêt pour organiser les élections nañu dem ci union européenne wax ni Macky Sall il n'est pas prêt à faire sortir les cartes il faut que ñun ñu nekk Europe ñu jël en charge ce combat là nañu jël charge yi ñu dem au des institutions internationaux wax ak ñoom Nations Unies Union européenne ñu yóbbu fa loolu info rencontre leen demandez audience xamal leen ni Macky Sall il n'est pas prêt à il veut pas organiser les élections locales législatives et présidentielles parce que calculum yëpp mooy lan de bëgg a pousser à élection pour une troisième fois et que le peuple sénégalais du ko nangu allez-y déposez une plainte au niveau de l'Union européenne au niveau de la CEDEAO au niveau bien vrai que la CEDEAO elle n'est plus crédible Mais c'est pour demain, en cas de Pour la CDAO, ñu bañ a may CDAO alibi moom tamit pour jéem a naan woy euh, jotuñu benn plainte na société civile bi jënd déposer plainte au niveau de la CEDEAO les autres parties nañu déposer plainte au niveau des institutions internationales que ça soit l'ONU l'UNICEF l'Union européenne Ils n'ont qu'à amener les plaintes là-bas pour, pour porter plainte au gouvernement sénégalais, pour porter plainte à Macky Sall, pour leur dire que Macky Sall ne veut pas organiser. Il est dans l'intention de repousser les élections. Et le peuple sénégalais doit accepter. Parce qu'ils ne peuvent pas violer les droits des Sénégalais. loolu mooy dëgg et que aussi les partis politiques ñi nekk biir foofu ceux qui sont au Sénégal le moment est venu de se lever ngeen jog ngir ngembu ndax Macky Sall jënd fichier électoral parce que dafa jot nag dafa jot ñu wax c'est vrai parce que tey pour jéem a divertir sénégalais yi Macky Sall mu ngi ñuy tegal benn benn benn benn benn faux débat bu nekk la statut de l'opposition le chef de l'opposition c'est pas une priorité pour les sénégalais du priorité pour du urgence du priorité léegi pour mun a désorienter sénégalais yi ak la euh, la classe politique mu jënnee ce débat de du du euh euh, euh, euh, du statut de l'opposition et du chef de l'opposition pour bëgg a ne way Idrissa Seck mooy chef de l'opposition comment est-ce que ban ban crédibilité la Idrissa Seck am pour nekk chef de l'opposition attention amul benn crédibilité amul benn alibi tout simplement parce que pourquoi Celui qui est sorti deuxième de, de l'opposition, de, des élections présidentielles, c'est lui le chef d'opposition. Comment est-ce que Idrissa Seck peut devenir chef d'opposition Est-ce que c'est sûr et certain que Idrissa Seck n'a pas gagné Ousmane Sonko Même yow Macky Sall gagné élection yi alors yow Macky Sall tu n'as même pas gagné les élections et tu veux nommer le numéro 2 de le, le numéro de l'opposition le chef d'opposition comment ça c'est pas possible parce que yow élection yi nga jël nii yow su fekkee na nga gagné élection yi mais doo jëndee ay forces de l'ordre ñu assiégé e Dakar nga jël sa avion daw dem ba pare ne say nit nañ ko liggante ki nga jox sax pour mu joxe résultat yi pour mu wax ak sénégalais sax dafa jànnaxee jaxasoo mënul tuum sa archive archive yaa ngi fi nañu teg vaar ce magistrat-là, comme procureur, comme magistrat, comme quoi, qu'est-ce qu'il est devenu Qu'est-ce qu'il est Il ne pouvait même pas regarder les Sénégalais dans les yeux pour wax le yi Parce qu'en âme et conscience, ci digganteem ak yàlla ak bàmmeelam moom xam na ni yow Macky Sall gañewuloo élection yi pour bañ affronter Ousmane Sonko deuxième tour ci ngeen teg deal bi samp Idrissa Seck sénégalais xam nañ ko quoi alors donc dafa doy doy na et dafa jot sénégalais yi taxaw ñi xeex jël suñu yelleef nous réclamons l'audit du fichier électoral et que les bureaux de Pastef avec ses coal euh, euh, ses alliés yi ñi nga xam ne ñoom ñooy opposition nañuy dem commencer commencer teg les document pour jëm rencontrer Union européenne Il faut aller vilipender, dénoncer cette coup d'état, cette, ce coup d'état électoral au niveau de l'Union européenne. Na ko Pastef def Pastef avec sa coalition jot na y a que des intellectuels ils n'ont qu'à euh, euh le diaspora n'a qu'à prendre le son rôle diaspora bi aussi warul toog parce que ñi ngi wax fichier électoral bi le diaspora est là et resté tout tranquille diaspora bi ak yi ñeneen yi amuñu droit toog union européenne mi ngi fi mais ñoom def nañu ay recommandation nañu dem ci union européenne nañu dem ci parlement mondial nañu dem ci parlement mondial bi mais nañu dem ci ONU Nations Unies ñu déposer des plaintes parce que il faut que élection yi sénégalais yi jënd par coup coup par force ñu def élection yi Macky Sall amul droit pour pousser élection yi munul nekk fii dëkk di pousser ay élection rek sénégalais yi toog di xool ñoom bu ñu jekkuwul wallahi bu doon Macky Sall wóolu na boppam xam na ni ñoom dinañu gagné élection dinañ ko organiser mais soo leen gisee Macky Sall di pousse élection di ko poussaat c'est parce que il sait qu'il va perdre Le pouvoir a compris qu'il va perdre. Ils ont les informations. Et Inch'Allah, ils vont perdre. Parce qu'ils n'ont rien fait. Parce qu'ils n'ont pas de bilan. Et les Sénégalais ont dit que ñoom moom ak njabootam ñi ngi tëdd ci palais de la république ministre yi ñi ngi tëdd ci seen village des maisons de fonction te foofu sénégalais yi askan bi ñi nga xam ne pàcc bi nga xam ne ñoo leen sandil kat ñi ngi tey ci jafe-jafe ci mbënd mi donc moom am nañu information moo tax mu woo gàngoorom boobu ñu dugg biir palais pour xalaat ali bi bu ñu bëgg tegal sénégalais yi parce que dëgg naa fii euh, Ali Ngouille Ndiaye jënd na fi naan woy le gouvernement est prêt à organiser des élections si l'opposition est prête mais l'opposition est prête Ali Ngouille Ndiaye l'opposition est prête pour organiser les élections et l'opposition existe exige à ce que les élections se tiennent. Et l'opposition à Lingunyaï, l'opposition est prête et dans la dynamique d'organiser ces élections-là. amul beneen revendication bu fi am Aliou Ndiaye bu dul l'opposition réclame la tenue des élections l'opposition réclame l'étude des fichiers électoraux et la révision des inscriptions c'est ça donc ne sortez pas monsieur Aly pour nous tenir un discours euh, conditionnel si l'opposition est prête. L'opposition est prête. Nous sommes prêts pour aller aux élections. Donc, vous n'avez pas d'alibi. Parce que si c'est le Covid-19, <laughs> eh bien, c'est l'État qui a déclaré il faut apprendre à vivre avec ce covid Mais euh, évidemment, nous allons apprendre nous tous à vivre. Nous sommes en train de vivre avec ce virus-là. Et nous allons vivre avec ce virus-là. Donc les élections doivent se tenir. y n'y a pas d'alibi. amul benn alibi amul benn prétexte amul leen benn lay pour pousser élection yi donc li ñuy wax appel bu ñuy lancé mooy l'opposition radicale nañu jóg organiser wu les patriotes nañu jóg organiser wu pour réclamer l'audit fichier, le fichier électoral, les Guy Marie Sagnan, aujourd'hui c'est le fichier waaw les Guy Marius Sagna la les aar li ñu bokk tout ces Y'en a marre qui crient là le combat aujourd'hui bi nga xam ne moo war a saafaral lépp lu ñuy jooy nii mooy lan mooy élection yi nañ ko tap na am ñi bañ a pousser élection yi na Macky Sall jënne fichier électoral bi parce que nous sommes des citoyens c'est notre droit nañ ko jëndee quoi loolu moo war a nekk taxaw société civile bi moo tax ñi leen di lancer appel Macky Sall bu mu déggee débat fichier électoral rek mu jëndee problème chef d'opposition ak statut de l'opposition yow yaa ngi nommé chef d'opposition bi nga xam ne yow statut bi sax parewul lan mooy nekk droit chef d'opposant ba pare teg ci deux milliards deux milliards yooyu xaalis Macky Sall la non c'est l'argent des sénégalais Macky Sall sénégalais yi nga bëgg a xaañ élection sénégalais yi nga bëgg a tere ñi dem élection sénégalais yi nga xam ne yéen a ngi ñaari yoon yéen a ngi pousse élection yi bugg koo xaañ sénégalais yi pour une troisième fois sénégalais yooyu ñoo moom deux milliards yooyu ngay wax noonu yi nga bëgg a joxe arbitrairement le, le chef d'opposant. Et ce chef d'opposant-là, c'est qui Idrissa Seck ngeen wax mais il n'est pas crédible il n'est pas crédible parce que bu jëlee bu nanguwee nomination boobu rek Idrissa Seck politiquement c'est un traître cela confirme que Idrissa Seck est un traître et le chef d'opposition là bu ko jëlee rek ñi xam ne deux milliards yu muy jël noonu euh, euh, euh, il a trahi le peuple sénégalais il a trahi les sénégalais ñi nga xam ne ñi ngi ci biir mbënd mi sénégalais yi nga xam ne ñi ngi sonn ci biir mbënd mi ñi ngi xiif ñi ngi mar sénégale yi nga xam ne ñi ngi feebar sénégalais yi nga xam ne bu ñu añee du ñu reer ñu ngi soxla école seen doom yi mënuñu jàng seen doom yi en 36e ci biir ndox mi lañ ko def ñoom ñoo moom deux milliards yooyu sa Seck bu nanguyee poste boobu charge boobu bu ko Idrissa Seck nangooy rek nga xam ne wax dëgg yàlla c'est un li ñu koy woote ci moom la c'est un complice c'est un traître mu ngi koy prouver et nous attendons la déclaration d'Idrissa Seck sur ce problème de chef d'opposant nous attendons Idrissa Seck sur cette, ce poste de chef d'opposant parce que Ousmane Sonko wax na déjà ça ne l'intéresse pas et c'est pas une priorité pour la population et c'est pas une nécessité pour la population et c'est pas une obligation pour la population et c'est pas c'est pas vraiment une priorité pour le, le peuple sénégalais donc Idrissa Seck mi ñu bëgg a solal casquette boobu ci solin bi nga xam ne teguwul ci yoon jaaduwul ci jamono bi nga xam ne ñoom dañoo sàcc élection yi Macky xam na ko ci digganteem ak bàmmeelam ak yàlla Macky Sall wóor na ko ne ak xulaay taala gañewul élection yi kon waru nangu Idrissa Seck waru nangu mu jouer complicité boobu ñu koy solal casquette bi nga xam ne sénégalais dañ koy xool buñ ko xoolee ñu xool bëtu naa fekk lañ koy gis bu ko sénégalais yi xoolee ñu gis ci moom euh, euh, euh, traîtrisme Idrissa Seck war na jomb loolu waru nangu euh, un certain Macky Sall di ko manipuler ngir lan pouvoir xamul ni pouvoir yàlla moo koy joxe yàlla rek mooy joxe pouvoir euh, yàlla pouvoir musu joxe ngeen baal ma ak astafurlah yàlla musul joxe pouvoir yàlla dënkaane lay joxe dënkaane nañu ànd ak himaan nit ki soo amee himaan da ngay am ngëm dangay fees dell parce que himaan la jullit bi war a mën a am pour ku am himaan mooy gëm ni yàlla mooy fale mooy folli ku am himaan dëgg mooy gëm ni yàlla musul joxe pouvoir yàlla musul partager pouvoir am déedéet wallahi yàlla dënkaane la lay def waxtu bi day jot mu dënk la lii waxtu jël jot ko mu jël ko wax naa leen fii les cent vingt quatre mille prophètes yi yàlla bind amul benn yonent ci cent vingt quatre mille yonent yooyu amul kenn ki nga xam ne yàlla jox na la pouvoir amul même sanga bu tedd bi yonent yàlla Muhammad yàlla joxu ko pouvoir dënk daf ko dënk mu jox ko dënkaane bi mu ne ko doxal ma mission bi sampal ma diine lislaam sampal ma diine lislaam waxal jullit yi euh, euh, l'humanité que man yàlla man rek maa am yoon ci yàlla dox mission bi keroog bu mission bi paree keroog bu mission bi jeexee xutba bu ñu dernier serment du prophète mu ngi ko defee ci kaaba booba la xam ne mission am jeex na day dem parce que booba keroog booba borom bi xamal na ko ni yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mission bi taxoon ma àndi la ci àdduna mission bi jeex na dénkaane bi ma la jox dama koy jël ba pare nga wuy si ma man yàlla ah sëgëm sang sëgëm gën ci mbindeef moo wuy ji boromam moo delloo dégg moo yàlla jël dénkaane bi mission bu jeex mu dellu astama doomu aadama moo tax damay leen di wax nii kenn amul pouvoir ci kaw suuf fii kenn rek moo am pouvoir mooy allahu subhanahu wa taala moom rek mooy buur mooy bumi ku fi yaakaar ne danga am doole ndax nga sa bopp que ngay xalif walla ngay wëliw wala ngay général walla ngay commandant walla ngay capitaine wala ngay policier wala ngay simple alkaati gendarme surtout alkaati yi dóor ci askan bi dale askan bi kenn yoru fi pouvoir fii kenn rek moo fi yore pouvoir mooy yàlla te pouvoir yàlla du ko séddoo ak kenn maanaam te ku ci nekk ci ñun yaa ngi toog di xaar sa bés li nga liggéey fii moom ngay góob ngay fekk sa biir bàmmeel bu keree ga yomal xiyaam moom ngay yore si sa livre bi ngay taxaw sa jëf yi ñu jox la ko nga tëg yàlla bul ko jëlee ndex ndoxo euh, càmmoñ parce que bés boo ko jëlee loxo càmmoñ rek yàlla nañ ci yàlla musal kon na ñi ñu jóg takk suñu ndigg na parti yi wu ñu jóg ñu taxaw ñu déftenir élection yi Idrissa Seck walul accepter encore unième fois bi comploter ci ci ci ci kaw bopp sénégalais yi ngir ay statut de l'opposition wala chef de l'opposition boo xam ne c'est caduc Macky Sall l'a fait sciemment Macky Sall dafa tey mu jëne loolu pour xaajale opposition bi pour tas opposition bi parce que xam na ni amul pexe yow chef opposant boo xam ne da ngay dañuy jël ci alalu askan bi nga xam ne amuñu courant ñu jox la ko bi nga xam ne dañuy jël xaalisu askan bi ñu war a fayle askan bi defare école yi ñu jox la ko wa li ñu war a tabaxee hôpital yi ñu jox la ko sénégalais ñi ngi fanaan ci biir ndox mi ñu jël xaalis boobu ñu jox la ko yow deux milliards après ñu ne statut de euh, chef de l'opposition statut de l'opposition nga bëgg jàkkarlook askan bi pour ne woy man Idrissa sa ma chef de l'opposition nii naa petiti patata pour lan pourquoi sénégalais ñoo war a jóg